ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين تبارك الله بك جلدي غناو بنيو سنتي يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جولي اي نيام أكي صحابه dellusi si nanu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission bu am solo bi nga xam ne tabaarakallaahu moo di alhuda min alkitaabi wa sunna eh, mu mel ni alhidayatu min alkitaabi wa sunna mbir la mu nga xam ne képp koo xam ne jullit nga soo déggee baat bi danga war a taxaw njug goo xam ne dañu koy tibbe ci alquran ak sunna ñépp a ko bokk xaadir bi murit bi laayeen bi tijaan bi naqshbandi bi chadali bi ñoom ñëpp ci la ñu bokk xataa yëfiir bi sax ci la bokk ndax daanaka moom lañ gën a visé tabarakallahu ci njubug alquran ak sunna dugg ci xolam mbokk yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo leen di defal émission bi ànd ak seen xarit Makhtar Dieng Ndiaye tabarakallahu ñuy nuyu nag borom kër gi di alxaaji Cerno Hamidou Yorobaan di ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral taxawaayam yal na yàlla mottali ay yéeneem ci yéene bi mu am ci diine ji yal na ko ci yàlla defal lu sut njortam ñu ngi doon waxtaan nag ci jëmm ju bon ji ñuy wax iblis Iblis nag di jëmm joo xam ne alquran tudd na ko lu bari mu mel ni jaruta xeeb ay mbiram ndax yaa laytahu huwa al aduwu faqat aka neexoon iblis dong di suñub noon waaye iblis ku ne xam na ne moo jiite yi noonu doomu aadama yépp yàlla nag su la waxee ne la kii mooy sa noon war nga ko xam ndax noon tuutiwul Iblis nag dafa am njaboot te njabootam itam yemul ci xeetu boppam waaye itam njaboot gi dafa dugg ba ci suñu xeet ñun nit moo tax alquran di ñu wax ne shayatinul ins dafa am ni shayatinul jinn amee noon bii di iblis am na qabail am nay ajnas am na ñu ñuy tuddee al abalisa am na al afarit am na aussi al marad ñi ñëpp ci njabootam lanu te bokkuñu ay feem ku ci nekk ak sa feemu bopp ak na ngay doxalee ak na ngay yàqalee itam doomu moo tax léeg ngay xool iblis ci jëmmu jinné wala seytaane fekk muy sëriñ bi nga topp léeg mu nekk itam jabar ji nga nekkal léeg mu nekk itam doom ji nga jur léeg mu nekk itam métier mi nga métier woo kon iblis bu ko takk mukk mukk mukk ci rekk ne benn jëmm la benn noon la shayatin lanu afaarit lanu abalisa lanu yal nu yàlla musal ci seen ay moom ibliis nag waxoon nañ leen ci waxtaan wi weesu suñu boroom daf ko digaloon mu bañ li tax nag mu bañ am na sax ñu ko firee ne iblis moo di sayyidul muwahhidin ndax nangu te sujootal keneen ku dul yàlla waaye loolu firi bu jàdd yoon la iblis dafa bañ rek li ko yàlla sant pour mu def ko ndax sujootal aadama du shirk waaw lépp lu nit ki def te boromam sant ko ko shirk génn na ca loola moo waral ñuy sujjóot di jublu ca kaaba ga xanaa kon ñun dañuy jàmm xërëm déedéet kaaba gi du yàlla xibla rekk la kon ba malaaka yi dee sujjóotal aadam boobu aadama xibla rekk la waaye du xërëm bu ñuy jaamu léeg nga am ñuy gisee noonu ci suñu sëriñ si waaw jàppe ne sëriñ si ñun dañ leen a jàppe yàlla waaw fekk eh sëriñ bi da koy jàppee mursid rek boo xam ne wasiila la boo mën a jaar pour yegg ci sa boroom jege sa borom waaye nag su fekkee xam-xam lalu ko réer a ko lal ak ñàkk xam su boobaa nag shirk mën naa dugg ndax a shirk axaf min dabibi naml bokkaale gën na woyof Eh, tànko sànq lañ ci sa kaw ndax junni sànq lañ mën nañuy dox ci sa kaw yére te doo ko yëg kon nag bokkale noonu la sewe mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wax na ne seytaane dañu koy tëj ci weeru koor wax na ko ci xutba bu siiw ci ndoorteelu weeru koor mu melal seytaane yi ba wax ne ash-shayatin maghluula seytaane dañ leen di tënk kon fa ma baaluna nara hadihi almafasid fi hada ash-shahr lu waral ñuy gis yàqu-yàqu bu bari ci weeru koor wu tedd wii te ay doomi jullit di ko def comportement yu ñaaw yu bon jikko yu ñaaw yu bon nga koy gis di gis ci biir kër yi di gis ci mbedd mi di ko gis surtout ci tali bi xataa ñuy dawal oto weeru koor sa xol xat mënuloo muñ sa làmmiñ ñaaw léeg nga saaga weerukoor ci col yi jigéen ñi ñu ci bari ay jullit lañu woor nañu waaye tey ñu ngi dox ci mbedd mi ak col yu bon daanaka boo nekkee ci réewu jullit ci weeru koor da ngay foog ni ci réewu yéeféer nga nekk surtout Sénégal surtout Ndakaaru boo dee xool tey jawwu diine ji ñu waroon a am ci koor gi jawwu la joo xamante ni bu fekkoonte ne tëj gi ñu tëj seytaane tëju kulli la kon mën nañu wax ne doo dajeek benn nit muy génne ci gémmiñam lu ñaaw wala ngay gis ci comportement comportement bu wuutee comportement jullit surtout nag ci télévision yi ak rajo yi ba léegi musique yaa ngi takarnaase rawatina eh, comédiens yi nga xam ne ñooy reetaan loon nit ñi reetaan loon nit dem neen ba boole ko ci diine ji ak dexk te yonent bi sallallahu alayhi wa nee na wa aqilla dexk waaw فإن كثرة الضحك نانا تميت القلب يونت بي نانا نيوال لوي ري نانا ندخ ري جو باري دا فاي ري خول لجي بو دي خول تلفزيون ييب كوميديان يي نيوم نيوكو اوكيبي pour rétan lo nit ñi ci wéru koor dem neen ba def ko promotion ah ñàkk dégg diine ko waral kilifa yi kenn waxul waaw te seen émission yooyu Monon a ko def émission diine émission yo xamné dañuy nit ñi koor dafa nek lo xamné dafa diis ay go xamanteni fokk ñu woyofal ko ci reetaan fokk ñu woyofal ko ci ay kaf loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nee na képp koo xam ne sa koor bàyyi bàyyiwoo ci lu ñuy tuddee almidaax mooy kaf bàyyi bàyyiwoo ci lu ñuy tuddee azzuur mooy wax bu amul njariñ ay jëf yu amul njariñ neena sa koor yaa ko tuddee koor waaye yàlla tuddeewu ko koor ndax soxlawu ko kon nag mbokk yi ñu ngi fàttali suñu bopp di fàttali suñu mbokki artistes yi di fàttali ñi nga xamante ni ñoo moom télévision yi ne li ñu jox importance ci weer wi yàlla joxu ko importance daf ko xas daf ko rëbb yonent bi joxu ko importance daf ko xas daf ko rëbb ndax dafa bokk ci yi yàq koor kenn du yàq sa koor ci rey sa xol ci reetaan rawatina nag ñu koy def ci façon boo xam ne dara dëppawu ci ak diine dañ ci gis ñoo xam ne la ñuy def saboté diine la waaw saboté diine la la ñuy def saboté diine la waaw jël alquran ji jël melokaanu imam yi melokaanu ustaas yi di ci fo waaw ñoom daal ittaxadu diinahum lahwa ittaxadu diinahu diinahum laiban wa lahwa nit ki bu demee ba jàppee diineem kaf ak caaxaan ak reetaan na ko leer ne taxaw na ci tuñu safara te yëgu ko kon nag ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi xel weer wi ndax weer wu tedd la du weeru kaf mbokk yi ñu ngi fàtte sax li ñuy tuddee kaf li'tikaaf mag ñi dañ ko daan def surtout ci weeru koor surtout nag ci fukki guddi yu mujj yi ndax ci lañuy ñuy dàkk laylatul qadr li'tikaaf mag ñi dañ ko daan def te mooy leen wéet ak sa boroom gedd li ñuy tuddee portable téléphone kenn du la woo gedd rajo gedd jabar gedd doom gedd xarit wéet sa boroom ay fan yoo xam ne yaag yàlla kot waaw léegi tey nag ñu bëgg laa wettali ciy caaxaan te li'tikaaf tey ku yoroon micro-trottoir di laaj nit ñi lan moo di li'tikaaf di ko laaj jullit ñi xamuñu ko xamuñu li'tikaaf kon nag soo mënta def li'tikaaf alxaqiqi te mooy gedd sa portable kenn dootu la wooti doo am contact ak kenn ku dul sa borom soxna ya bàyyi nga leen ca kër gi doom ya noona xarit ya noona waaw dugg ci sa roq toog fa ñetti fan wala juróom-ñaari fan wala fukki fan yu nga xamante ni yaak yàlla kot dog nga àdduna bi loolu su fekkee ci weeru koor la ëppee doole ndax bi idami zamani wal makani taadumu taatun kada al isyan noonu la ko Sidi Xaaji Malik si waxe nee na màggaayu jamono ak barab dana war dana waral tiyaaba màgg ca dana waral itam bakkaar màgg ca rëy ca kon mbokk yi ñu bàyyi xel weer wi xam ne am nañu noon boo xam ne moo di seytaane yonent bi nee na tënk nañu ko ci weer wi waaye day tënk bi war nañ ko firi ndax jaaduwul ñuy weddi yonent bi sallallahu alayhi ndax ku ko weddi yéeféer nga waaw ku weddi bi rek yéeféer nga kon lim ne seytaane dañu ko tënk shayatin yi dañ leen a tënk shayatin yi la wax dañ leen a tënk kon d'accord ne ne dañ leen a tënk waaye nag wax wax bi dafay laaj firi mu mel ni weer bi nga xam ne weeru tuub la weeru jàng alquran la weeru zikar la weeru tabe la weeru sarax la nga gis ci xeetu jikko yu bon yi di ci feeñ kon noo mën a gëmee ne seytaane dañ ko tëj am ci boroom xam-xam yu ñu wax ne seytaane tëj gi ñu ko tëj tëj njabootam tëj la koo xam ne juz'i la mais du kulli maanaam tëjuñu léppam dafa am lu ñu tëj ci moom am lu ñu bàyyi te comme yàlla shayatin la wax même bu ñu tëjee bu mag bi na la leer ne seytaane am na njaboot ci ñun ndax buñ dee seet seytaane bu ñu génn suñu bopp waaw seytaane am na njaboot ci ñun ndax bëri na lu bon lu nit di def min ibdaaina nahnu ka shayatin ka shayatin al bashar waaw kon tëj gi ñu tëj seytaane dañ ko wutal charte charte bi mooy lan dafa am ñu ñu tëj seen seytaane ak ñu ñu tijji seen seytaane ñi ñu tëj seen seytaane mooy way gëm ni muy jullit ñu yiw ñu baax ñi nga xamante ni xam nañu valeuru koor xam nañu importance su weeru koor xam nañu lan mooy ramadaan xam nañu xikma bi tax yàlla may ñu weer wu màgg wi di weeru koor muy promotion boo xam ne liñ ci mën a gañe ci suñu dund bu gàtt bi rëy na ñooña xam loola ba jox weer wi ak xam jox ko gëddaam ñooñu yàlla tëjal na leen seen seytaane seytaane du leen mënal dara waaw almuminuuna almuctaqiduuna bi usuli diin ñooñu seytaane mënu leen a irwa ci benn boor waaw laa yastatiu alcheytaan an an an yurwiyahum lu tax ndax xam nañu la ñu bëgg te am nañu fayda yi seytaane du leen tabarakallahu gàllankoor rawatina nag bu leen yàlla dimbalee ci weer bi ba tënkal leen seytaane kon seyaatin yu ndaw yi nga xamante ni amuñu doole mënuñu leen a gàllankoor ci weer wi waaw moo tax léeg-léeg nga gis tabaarakallaahu jullit bu am fayda ci koor bi nga xam ni lu mu def rekk yiw la waaw gedd na lal gedd nay caaxaan gedd na lépp mu ngi ca alquran ja mu ngi ca nawafil ya bu dee ne borom wërsëg la mu ngi ca e, yulli bay joxe di dimbali ñu ñàkk ñi waaw ndax weer wi ki am wërsëg waxuñu ko muy julli julli yu bari ki am wërsëg nay génne ci alalam di joxe ndax foofu la ñu bëgg ak jaamu yàlla boroom xam-xam bi nay wax ndax foofu la ñu bëgg jaamu yàlla waaw ah, ki nga xamante ni nag moom amul wërsëg amul xam-xam nay góorgóorlu ciy rakka tey góor góorgóorlu ci jàng alquran tey def lu baax lépp loo xamante ni lu bon la loo xamante ni yàlla bëgg ko nga daw ko ci weer wi ndax def ci bàkkaar dafa rëy def ci tiyaaba dafa rëy kon ki ñu tënk seytaaneem ci weer wi mooy ki nga xam ne dafa xam importance su weer wi ngëmam tabaarakallaahu mët mu jóg nag fas yéene jox weer bi ak xam kooku seytaane tënk nanu ko ndax du ko mënal dara ci moom waaye nag kàccoor yi nga xamante ni xamuñu weer wi xamuñu ngëneelu weer wi xamuñu importance su weer wi ñu réer ñi nga xamante ni jànguñu ñooñu day seen seytaane kenn tënku ko ci weer wi waaw ñoo ñu seen seytaane kenn tënku ko ci weer wi ñoom ngay gis ñuy saaga ci mbedd mi ñoom ngay gis ñuy sàcc waaw barki démb dañ ma tabarkal la sàcc sama portable wallaay waa ji daal nee na ma am na ku lay woo na le ma geestu ndeke dama ubbi sama fenêtre oto keneen ki mu àndal dugal na loxoom ba jël portable ba dem tabarakallahu ci weeru koor hmm? weeru koor nga ciy sàcc kon kay yow xamuloo nga lu weer wi kon yow kenn tënkalu la sa seytaane kon ki ñu tënkal saytaaneem mooy ki nga xam ne xam na ne sàcc ci weeru koor bàkkaar tollu ni jëw ci weeru koor bàkkaar tollu ni waaw su ko defee nag buñ ne tënk nañu seytaane nanu ko xool ci côté boobu ki ñu tënk dafa am ku ñu tënkal seytaaneem am koo xam ne kenn tënkalu ko seytaaneem mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wax na ko nee na yéen jullit ñi nangeen xam ne buntu àjjana yàlla ubbi na ko ci weeru koor na ngeen ñaan yàlla mu bañ koo ub nag ci seeni kanam waaw buntu àjjana yàlla ubbi na ko ci weeru koor ngel la waay bu leen sàggan ba yàlla ub ko waaw mu ne itam na xam ne buntu safara yàlla tëj na ko ci weeru koor ngelawaay bu leen na ñaan seen boroom mu bañ na ubbi buntu safara ubbil leen ko ci weeru koor am nañu yàlla ubbil bunti safara ci weeru koor waaw am na ñoo xam ne yàlla tëj na buntu àjjana ci ñoom ci weeru koor te àjjana buntu yaa nga ubbeeku waaw buntu yaa nga ubbeeku nit ñaa ngi dugg di inscrire seen tur ci aljanna ndax weer wee ko waral am na ñoo xam ne tëjal nañ leen buntu safara wante am na ñoo xam ne ubbi nañu seen buntu safara te ñu ngi ko ubbee ci weeru koor yonent bi de dellu wax ne yéen jullit ñi na xam ne seytaane jéng nañu ko tënk ko ci weeru koor na ngeen ñaan yàlla mu bañ koo xiirtal ci seen kaw ci weeru koor kon am na ñoo xam ne ci biir weeru koor sàggan nanu ba yàlla tekki seytaane xiirtal ko ci seen kaw xadis bi moo ko wéral kon nag seytaane tënk nanu ko ci weeru koor waaye yonent bi nee na na ñaan yàlla yàlla bañ ko xiirtal ci seen kaw kon nag mbir mi day ànd ak ñaan góorgóorlu la effort la buy ànd ak ñaan kon seytaane yooyu nga xam ne ay xeet la da danga leen fekk ci nit fekk leen itam ñu di ay giir ñoom seytaane da nga gis seytaane boo xam ne ci misaal da nga naan chinois la am seytaane boo xam ne danga naan naar la am seytaane boo xam ne da naan joolaa la am seytaane boo xam ne da nga naan tukulóor la am seytaane boo xam ne da naan séeréer la ñoom daal qabailu shayatin la waaw am na ci ñoo xam ne nag xamuñu dulul yàq ñoom la ñu tuddee almarad yàq rek waaw am ci ñoo xam ne ay afaarit lañu mu mel ni su fekkee ñii la yàlla wax ne ñooy suñuy noon te iblis di seen baay di seen maam iblis nekk général bi nga xamante ni moo jiite seen lépp jur leen ni yonent bi nekkee suñu patron noonu la iblis nekkee patron seytaane yi kon bu fekkoon iblis dong la ñu am ci noon noppalu ndax mënta matale fépp waaw yàlla rekk mën a matale fépp waaye nag yàlla da koy jox mbooloo soo amee noon nag te seen xare du fi jóg ndax nanu xam ne iblis ah aasara al anbiyaa wa saalihin jamonoonte na ay yonent yu bari ak i wëlu yoog nit ñu yiw ñu bari bokk na ak ñoom jamono bëreeg ñoom ci seen jamono bëre na ak suñu maam aadama ba génne mu wàccee ko ci kaw suuf mu bëreeg moom ba tas këram ndax taawam mujj na rey rakkam suñu maam aadama jóge fi mu bëreeg Chiisa jóge fi bëreeg Seydina Idris Seydina Nuux bëreeg suñu maam Ibrahim waaw dem na ba ci Yaquba njabootam bëre nak ñom jil sendom jël seen doom seen doomu bay dugal ca teen waaw yoy yëpp bëre shaytané la ak doom aadama bëre bobu nak du fi jog ba mukk ndax mom iblis mi nga xam non la xare bi ñuy xarek moom bu ñu foog ne ki ñuy xareel ko tuuti la waaw ndax iblis laysat shaxsiya adiya ndax huwa شخصية مخضرمة له يعني خبير بما يعمل وبما يصنع إبليس كخم فمو جملة كخم يتم لمو دفلة واو سوكو دفي نك بو أمي نون بو نيو دي خيخك موم حتى صح نيغا خمني دانيو فرال دي غير سو خمي سن نون نموي خلاتي خم أي استراتيجي من نغا موچو موم سو خمي نموي خلاتي xam na muy doxale mën ngaa mucc ci moom waaye nag su fekkee da nga yaacaaral rek jéemoo xam dara ci sa noon ah l'islam sax nangu na espionnage waaw ndax gis ngeen xare ba Badar espion yi doon dox waaw ah, boo xoolee tey américain yi ah, képp koo xam ne seen noon la ñu ngi lay espionné même ci seeni xarit sax dañ leen di espionné kon nag yow boo dee jullit ñu ne la iblis sa noon la war nga espionné iblis jéem a xam nag kan mooy iblis ak foo war a mën a jaar ba mucc ci moom lan moo di ay pexeem ndax loolooy tax nga mën ko gañe ci xare bi su fekkee xamuloo ko nag moo lay gañe waaw moo tax ñuy waxtaan ci iblis pour nga mën a xam kan moo di ibliis iblis nag général la armée bu mag la yor waaw armée bu mag la yor lahu jayshun aramram te alquran moo ñu ko wax te li ci doy waar mooy inna min jinsina man yakunu min kibaari awaani iblis li gën a yéeme mooy xeetu doomu aadama am na ci ay punkal yoo xam ne ay kilifa te ci soldaaru iblis yooyu lañu bokk dañu koy liggéeyal bu baax tabaarakallaahu kon nak jaadu nañu xam naka la Iblis di xalaatee jaadu nañu xam naka lañuy def ak moom ba gañe ko ci guerre bi waaw ndax xare bi nga xam ne moo dox suñu digganteeg moom xarbun mustamirra la waaw munzu alafi sinin moo tax soo demee ci suuratul araaf suñ boroom subhaanahu wa taala mu ngi wax naan ñu yaa bani aadam لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بكين تحو ñu taxaw ci aaya gis nga iblis ak njabootam gi déglul aaya bi yaa bani aadam ey yéen doomu aadama yi yàllaay wax de ngallaawaay laa yeftinannakum bum leen fitnaal asheytaanu sheytaane kama axraja abawaykum min aljanna comme na mu fitnaalee seen ñaari maam yooyu di aadama ak xawa ba génne leen ajjana wante li ngay jàng fii mooy innahu yaraakum huwa wa qabiluhu yàlla ne na force iblis mooy moo leen di gis moom ak armeem ak njabootam waaye yéen du ngeen leen gis waaye mbokk yi di xareeg silmaxa buy xareeg njàccaar ah bu silmaxa ba gañee de dana jafe ndimbalu yàlla dëgg cay ànd yàlla nee na ki ngeen di xare moo leen di gis waaye yéen gisu leen ko kon foofu la force iblis nekk mu mel ni mbokk yi ñu teg foofu suñu baaraam te déglu nodd bi bu ñu noppee continuer Safina FM a ngi déglu Safina FM tabarakallahu tabarakallahu mu mel ni ci aaye bi suñu boroom bu ngi xamal ne gis gi ñu seytaane di gis ak njabootam te ñun duñu leen gis te ñu nekk ñaari xare yoo xam ne kenn ku ci nekk la nga am ci ngànnaay yépp taxaw nga pour fas yéene gañe sa moroom doomu aadama yi yëpp di silmaxa seytaaneek ñi mu àndal ñépp di ay njaccaar di gis seen xol yi di añ añi te seen noon bii di doomu aadama rekk leen bañ teg bët buñ ko dee ray duñ ko yërëm buñ ko dee gaañ duñ ko yërëm ndax foo takk seen mbañeel ak seen noon ci doomu aadama jéggi na dayoo suñ borom di ñu xamal ne seen noon bii di iblis moom ak njabootam gi di armeem bi ñu ngi leen di gis te yéen du ngeen leen gis kon ixda asbaabi quwati shaytaan fi injaahi xuttatihi mooy gis gi nga xamante ni mu ñu koy gis te njabootam di ñu ko gis te moo te ñun gisuñu leen kon baatu alqabil huna maanaam li yàlla wax ne alqabil maanaam baatu qabil lan lay signifier lan lay tekki moo di al junuud wal jaysh iblis soldaaram si ñu ngi jàkkaarloog yéen di leen gis te yéen gisu leen leen nanu xam ne ibliis du général bu tuuti te itam njabootam duñu armée bu foyoyal bu ñàkk fayda bu ragal mukk te itam seen mbooloo foo ko takk ëpp na ko ndax mën nañ wax ne la jayshun da'funa armée Iblis mëdd nañu ñaari yoon waaw ñun buñ dee junni ñoom ñaari junni lañu ñun buñ dee ñaari junni ñoom ñeenti junni lañu kon iblis moomu saabu suñu boroom masaana yebal ab yonent daan na jóg ànd ak armeem boobu def faas yonent boobu pour fas yéene koo yàqal saa bu boroom masaana feeñal ab waliyu gannaaw bi yonent yi jeexee daan nañu jóg def faas waliyu boobu pour yàqal ko moo tax ngeen gis suñu mag ñu baax ñi kenn dundu ci ci noflaay ñoom ñëpp ci coono la ñu dund te la leen sonal du kenn lu dul ibliis ak njabootam waaw ndax awliya yooyu di feeñ ci jamono gannaaw yonent yi ñoom kenn ku ci nekk rek da nga gis iblis jonkanu la pour yàqal la saa bu diine masaana góorgóorlu ba am taxawaay muy ay ndaw yoo xamante ni jóg nañu pour taxawal diine def dara ci diine da nga gis iblis taxaw pour gàllankoor ndaw yooyu mu mel ni mbokk yi xataa bi nga xamante ni yàlla indi na phénomène bii ñuy tuddee euh, rajo nga xam ne ak télévision jumtukaayu ñaari ñawka la mën neen ko jëfandikoo ci lu baax mën neen ko jëfandikoo ci lu bon xoola seytaane bi mu ñëwee li mu def mooy taxaw na moom Iblis ak njabootam pour fas yéene dévier télévision yi ak rajo yi ci yoon wi nga xam ne moom la bëgg ba tax na tey ustaas yu bari yoo xamante ni tey duñu waroon a taxaw ci télévision yi ak rajo yi di waxtaanal diine pour diine am ndam di waxtaan pour yàlla am ndam di waxtaan tabarakallahu te bañ caa wut daraja bañ caa wut alal tey ñoom ñëpp kenn koo ci gis ñaar yi lay wut ñaari deel yi mooy daraja ak dërëm ñu bari ci ñoom tey ñi nga xam ne dërëm rek leen ci wut ak daraja xeeb nañu sax yenn jataay yi nga xam ne duñ fa am dara ñu ngay wuti jataayu ministre yi jataayu député yi jataayu nit yu am maanaa yi ngir mën caa for dara danga koy gis ci seeni waxtaan ci feem ya ñuy def ngir rek mën a yëngal mbooloo mi pour ñu mën a génne ci seeni poche di leen ko jox xoona ni lislaam amee doole tey bés mën a yegg ci senegal ay ndaw yu takk woon ci wetu yenent bi كملني مصعب بن عمير كملني زيد بن حارثة كملني بلال بن رباح nga xam ne ñu ñëpp ay jeune lan woon ku mel ni farisi ñooñu boo dee xool tey mbaar ma yonent ba mbaaroon ca jàkka ja nga xam ne sarax bu ñëw fa la leen di fekk ñu tudde leen ahlu suffa ñu bari ca ñoom foofa lañu bokk ñooñu dañoo jàppoon ne dërëm ak daraja bokk na ci li nga xamante ni day gàllankoor nit ki ba du yegg ci yàlla ñu daldi jël àdduna teg ko ci seen gannaaw loxo jël seen xol dugal fa yàlla ak yonent bi ba tax na kon seytaane ak bëreem tey jàpp nañu ñun ustaas yi kenn ku ne rajo ba nga nekk télévision ba nga nekk yaa ngi koy jéem wut ay nit ñu am maanaa yoo xam ne wutoo ci ñoom dara lu dul ñu jël seeni dërëm di la jox lan la yonent yi daan wax ñun dey soxlawuñ ci yéen ak pay léeg-léeg sax nga dégg ustaas bu ko wax te kalimatu xaqin urida biha batil la léeg-léeg nga gis ustaas bu ne ah man kat fayee ko wu ma nangam ak nangam fekk fiir la rek gu muy teg pour mën a gën a jekku boroom alal yi waaye gëmu ko ci alal lay dox ci alal lay wër kon mbokk yi ba léegi iblis ay pexeem ak i fiiram mu ngi ci biir ëttu diine yi di ko yàq yàq bu garaaw dugg na ci kër sëriñ si sëriñ si faaleetuñu taalibe yi woyof mbubb waaw taalibe yi seen poos diis rekk lañu dëtmal ñoom lañu ñu jàkkaarlool ñoom la jox seeni xol kon iblis liggéeyam a ngi dox te nag noon boo xam ne doo ko gis ndax arme boo xam ne laysu bi mar yiin kenn du leen teg bët te lépp lu ñu bëgg nag daañu ca taxaw ba loola am te li ñu bëgg dara neexu ci yàlla noon boo xam ne boo dee sëy ak sa jabar mu ngi jàkkaarlook yow di la gis te gisoo ko soo dee lekk mu ngi la tiim di la gis te gisuloo ko soo dee nelaw mu ngi la tiim di la gis te gisuloo ko sooy génn sa kër mu ngi lay gis te gisuloo ko sooy dugg mu ngi lay gis te gisuloo ko koo mën a wéetal di waxtaan teew na fekkee na ko kon nanu xam ne bëri bu rëy moo dox suñu diggante ak noon bu rëy bii di iblis laanatullahi aley mbokk yi nanu xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala dafay jaay waaye bëgg na ko jënd ajjanaam ji ku la ko yombalal daf lay nax yàlla da koy jaay waaye bëgg na nag ay client waaye nag client yi du kenn lu dul ñi ko gëm te seen ngëm dëggu kon nag nanu tasxiix suñu imaan waaw vérifier ndax gëm nanu yàlla wala gëmuñu yàlla ni ko boroom Laxdari waxee awalu ma yajibu ala al mukallafi tasxiixu imaani te yomb na nag nit ku ne la muy def na na xool ndax jëmmi yàllaa tax wala déet waaw yow miy saraxe ngis ta la tax wala yàllaa tax xam nga ko yow ustaas bi waaraate ci télé bi wala rajo bi wala ci conférence bi ngistal ak jërëmu nit ñee tax wala daraja wala yàllaa tax xam nga ko waaw su ko defee boo tasxiixee sa imaan rek danga xam ndax yàllaa tax wala àddunaa tax mu mel ni noon bii nag mag ñi wax nen ne teg ko bët jafe na waaye léeg-léeg yàlla feeñal ko moom la doon waxtaane ci ajuma ci euh, euh, suñ waxtaan wi ñu génn ci talaata jële kon iblis am na ñu muy wan jëmmam ñu ne nag léeg-léeg mu am li maslahatin ma wala li xikmatin ma léeg-léeg xikma yàlla feeñal iblis léeg-léeg itam intérêt boppam tax mu feeñ daan na feeñu yonent yi léeg mu feeñu wëlu yi léeg mu feeñu itam ñenn ci way gëm ñi waaw loolu nag am na ay ahadis yoo xam ne ñoo ko dëggal bokk na ca feeñoom googu nga xam ne feeñu woon na ko yont yàlla yaxya te moo doon suñu waxtaan wi mujj ak feeñu gii nga xam ne feeñu na ko yonent bi sallallahu alayhi wa ci xur ci benn xur ci xuru madina yi ndax bayna nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi baadi shiaabi almadina id samica salsalatan shadida yonent bi dafa nekkoon ci benn xur ci xuru madina yi mu dégg benn yëngu bu tar fekk boobu mu ngi ànd ak Seydina Ali karamallahu wajha Seydina Ali daal di koy laaj ne ko li may dégg lan la yow yonent yàlla bi yonent bi ne ko hada iblisu fi jayshi yëngu boobu iblis la ak armem dañoo jóg pour mën a dégg nga wéyal seen benn fiir gu ñu fiir am na fu ñu jëm am na lu leen tax a jóg am na lu ñuy rëbb looloo tax nga dégg leen ak seen yëngu le sayna ali daal di laaj yonent bi ne ko yaa rasulallah inni uhibbu an araa yow yonent yàlla bi man kat dama bëggoon a gis iblis ndax dama koy dégg rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bokk na ci pouvoir am mooy du iblis am am doole moo ko ëpp doole moo ko ëpp pouvoir moo ko ëpp may ci yàlla waaw ndax waxoon nañ leen ne keroog ba ñuy sujjootal aadam boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam fa ko yàlla denc mu ngi ko fa denc moo tax yàlla ne ko astakbarta am kunta min al aalin yonent bi ne iblis yaa aduwallahi tajalla li ali ey yow noonu yàlla bii di iblis wanal sa jëmm nag sama rakk ji di ali iblis daal di feeñu sidna ali ci jëmmam nag dëgg-dëgg am nañu ne feeñu na ko daal ci benn ci jëmmam yi wante daal lii la xadis bi wax daf ne bi yonent bi waxee seytaane ne ko yaa aduwallahi tajalla li ali seytaane dafa daldi génn nag indi jëm joo xam ne jëmm ju yéeme la jëmm ja nu mel gis neen jëmm joo xam ne daal cheykhun qasirun abyadu shaar lahu lixyatun atwalu minhu ñu ne gis neen jëmm joo xam ne jëmm ju gàtt la benn màggat mu gàtt waaw gàtt lool sax yaram wi yépp nag kaawar gu weex la mu ngi yor nag sikkim bu gudd sikkim boo xam ne moo gën a gudd sax jëmm ji lahu aynaani fi jabinihi mu ngi am nag ñaari bët ci jëye waaw boo xoolee jëw iblis ñaari bët a nga ci waaw wa aynaani fi sadrihi ak ñaari bët ca dënn ba kon iblis ñeenti bët la am ñaari bët a nga ca jëba mais itam ñaari bët mu nga ca dënn ba naka la ko Seydina Ali gis rek ca fit waak ñeme ga Seydina Ali songu Iblis daal di dal ci kawam nag daaneel ko waaw maanaam bëri nanu daal Seydina Ali daaneel ko toog ca dënn ba nag toogee ca dënn ba rek roc ci paaka bi nag ne yonent bi sallallahu alayhi wa sang bi jox ma ndigal ma rendi yonent bi daal di ne ko fa ayna nadrata fa ayna nadrata ila yawmi alqiyama yonent bi daal di Ali ne ko waaw la yàlla waxoon ne ko danaa la muñal ba ila waqti waxtu al maalum danaa la muñal ba ba ñuy dekkal jaam yi te am nañu wax ne yow ma yunfaxu fi suur mooy bis bi nga xam ne ci la iblis di faatu mu ne ko bis bi ñëwagul mënoo ko rey kii garanti yàlla la àndal yonent bi loolu la dalalee Seydina Ali Seydina Ali xam ne yonent bi wax na ko dëgg mu daal di wàcc bàyyi ko mu mel ni kon Iblis du noon bu ndaw noon bu bëri pexe la noon bu yéeme la boo xam ne du tàyyal mukk ci jëflanteeg ñun moo tax nii mu feeñoo yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la feeñoo woon yonent yàlla yaxya ci biir néegam Seydina yaxya nee na melokaan wi mu indi mooy yaramu mbaam xuux la yor mais bopp bi bopp golo la nee na itam gémmiñ ga yax la day wax comme maytafon nee na itam bët yi xotteekuwul comme bu nit dafa xotteeku taxaw nee na mu ngi yor nag benn ceinture boo xam ne façon couleur bu nekk ngi ci yor benn jollooli yor benn kaan bu lunk te gudd nee na ma commencé di ko laaj ne ko sa ceinture bii lu muy wund mu ne ko mooy insigne diine yi ma juus ndax diine la woon joo xam ne diine ju baax la maa ca dugg di ko yàq di ko yàq di ko yàq ba ñu dugal ca caaxaan yàlla xëy gedd diine ja non rek lay def diini ju ma sa am fii dana ci dugal yu caaxaan ba la ca yàlla bëggoon dootu ko ci amati moo tax diiney nasaraan diine ju baax la woon waaye yàlla xëy na jàppee ña ca nekk ñu sànku diine yahud diine ju baax la woon waaye yàlla xëy na mere ña ca nekk moo tax boo dee ñaan njub da nga naan gayril maxdubi alayhim wala daalin diine yooyu baaxoon nanu waaye iblis moo ko yàq yàq na diine yooyu ba yàlla soxlaatu ko suñu këru diine yi itam noonu la deme danga gis këru diine goo xam ne mag ma ko sañc ci alquran ak sunna rek la ko sance woon waaye boo demee tey ay caaxaan rek nga fay fekk waaw buñ la waxee tey ne la sëñ kër Si mosul nuyu jigéen jox ko loxo mosule na nangu recevoir kon boo demee ba ci biir xadaraam boo fa gisee loolu nga xam ne soppeeku soppeeku mu ngi am mu ngi dugg ndànk-ndànk waaw su ko defee nag lay ñag loolu mooy yàlla feeñal ca njaboot ga ñoo xamante ni daañu nekk nit ñu sàmm nit ñu jàng ñooñu ñooy delloo si nit ñi bu ko defee léegi di beesalaat liggéey yu mag ñi waaw di ko yeesalaat moo tax mag ñi kenn du leen critiquer waaw bëri na koy gis mu naan mag ñi di mag ñi di fekk lu bari lu muy wax mag ña defuñu ko sosuñu ko ca waaw dañ ko taa dañ ko caa dugal borom daraja ju ca bokk moo ko ca dugal te kenn xamul eh, noo koy def mu mujj rek loolu di ay pexe seytaane yoo xam ne ci lañuy ñuy yàqee këru mag ñi waaye mag ñi seen kër yi ñu ngi ko tabax ala ci wa sunna liggéeyu iblis boobu moo tax mu ñuy xamal ne seen tiiram boobu insigne diiney majuus la bi maanaa kon moom ndeke dafay dugg ci diine yàq ko noonu lay duggee ci tariqa yàq ko noonu lay dugge ci daara yàq ko iblis Seydina Yaxya daf ko laaj ne ko couleur yi ma gis ci sa ndigg li lu muy signifier mu ne ko mooy xeetu jigéen yi may feeñal jamono ndax am naa mat gu toll ni ci pouvoir yi ma yàlla defal danaa fexe ba jigéen ñi mujje juddu ñooy dax ñi leen njëkk juddu judd danaa feeñal ci ñoom xeetu taar yoo xam ne ci lay rëbbee góoru yàlla yi ci lay rëbbee nit ñu yiw ñi moo tax ibliis nee na jigéen ñi ñooy ay fixaaxam nee na fuxuuxi hiya nisa waaw samay fiir mooy jigéen ñi moo tax mu wax ne moom iblis laanatullahi aley saa bu ma góor yàlla yu rëbbee ci seen làmmiñ di ma saaga di ma moolu ci ay taawuzaat nee na su ma meree balaa sama xol a sedd nee na ma dem ci mbooloo jigéen toog fa kon mbokk yi tabaarakallaahu eh, ñu nag saay-saay bu bon bi ci weer wu tedd bi ci pexeem yi nga xamante ni mu ngi koy nas saa su ne ngir rekk fexe ba ëllëg bu dee dugg safara dugg faak ñun ndax moom xam na ne àjjana amu fa cër mu ne na kër gu bon gi nga xam ne fa laay jëm kii tax ma jëm fa danaa fexe ba ànd faak moom wala ma ànd faak njabootam kon tabaarakallaahu mbokk yi eh, ñu tegani foofu suñu baaraam ba talaataak jàmm incha allah yal nañu yàlla may ñu fekkee ko seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ñu nuyu nag suñu xarit bu baax nekk ca Thiès di Kamal Samb di nuyu bàyyam alxaaji Maxtaar Samb tabaarakallaahu e, di nuyu itam alxaaji Xuseynu Guèye ca Thiès di nuyu al imam Moussa Ndaw ñu ngi nuyu itam tabaarakallaahu alxaaji Madun Thiam ca Kasoor di nuyu Ablaye Diallo tabaarakallaahu ca Sikap Eh, di nuyu itam al imam Mamadou Puy di nuyu itam Ibrahima Puy al imam di imaamu ratib ca Kassoor di nuyu soppe yi ak xarit yëpp di nuyu tabaarakallaahu ah suñu wëlëre bu baax di xalifa jee tabaarakallaahu colonel xalifa jee ñu ngi koy nuyu di nuyu ay rakkam ñoom njagaak ñëpp ñu ngi leen di nuyu aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين خريط شحمد تجاني ندو مولين دون دفل وقتان وي أند أك سين خريط مختار جن جاي